pour perspective pour Tafatine mu mu jéem a xool demaat jëli moom Modou Lo. mun mu ou bien mu revanche ak euh, Ama Baldé. loolu loolu du neex. voilà non parce que moom ci victoire la jógee. moom bëtam day tegu xaar. kii jël mais Ama ko daal non non Ama am na combat le 7 janvier le 7 janvier. waaw non non je veux dire après. après gris ou bien mais actuellement nii Tafatine. waaw ci couronne lay tegu Modou Lo rek Modou Lo booy booy ñaar fu ah, day xaar Modou ak booy ñaar deux. non bu naree jël ay revanche risque la waaw. risque la pour que day del kon day delluwaat day wàccaat ci mm-hmm. ginnaaw instant bii day taxaw xaar couronne bi fi rek combat royal bi ki gagné bu bu fekkee Modou dafa renverse tendance bi fële à Pikine waaw donc foofu moom mën na jël Modou mais bu fekkee Boy Niang dafa renverser Modou aussi moom mën na may bom kii Modou revanche parce que ñoom bawol bawol tey seen problème mooy pourquoi depuis de longues années ak ñoom làmb parce que arène bi à 60 pour cent mm-hmm. c'est des bawol bawol amateurs yi mais mosuñu am roi des arènes te ñoom un lutteur de la valeur de Tapha Tine morphologiquement taille bi ak ni mu mel donc jàpp nañ ne ñoom titre bi war nañ ko man yor ne serait ko pour dugal ko bawal benn bés loolu aussi daf leen di neex donc tey man je crois que même euh, xaw ma liy xew la première janvier entre Boy Niang et Lo mhm. mais lu ci man am mooy ki daan la Tapha di soxla